salaamaaleykum mbokku internetu Dakar midi nee la tey ñu am mbégte kontaan dalal ki nga xamante ne mooy suñu doyen Bour Gueweul mais tey am nañ naqar ak tiis trop li nga xamante ne tey dal li nga xamante ne tey mooy monde de la presse ci li nga xam ne mooy jeune presse li nga xamante ne ñuy liggéey ci mbirum tas xibaar nee la tey xol yi neexut bon xoolee ni may waxee sax xam ne tey xol bi xaw na am lu ko lu mu yëg di wax nag inna lillahi inna ilayhi raji'un bakkat bu ñam dund di nga musa ñam dee ah buur tey ñu dina jaale li nga xamante ni mooy lu ñu bokk am xale yoo xamante ni tey ñu ngi doon liggéey fel nga xamante mooy leeral point net yàlla dogal am ay ndog-ndog yu dal seen kaw ba ñàkk seen i bakkan buur ñu di la nuyu. ñoo ngi lay fay abu di wax yaa indi na mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya fa duxuli fi ibadihi wa duxuli jannati ci sunu ñetti confrères yooyu nga xamante ne que tey yàlla sunu borom dafa def ñu wàcc liggéey. di yoro nekkoon xale bu baax ak Ousmane. ak ki xam ne moom mooy Abdou Amadou Sy. Euh, di ko jaale d'abord euh, Dame Dieng. mi mhm. nga xam ne tey euh, moom mooy directeur de publication bu leeral point mhm. di ko jaal l'ensemble de la presse. particulièrement la presse en ligne. ab damay wax ni man sama combat yëpp ak sama mébét yëpp ak sama bëgg yëpp. Mhm. c'est la presse en tey xale yi eh, génn nañu àdduna ci anam bu metti démb rek ñoo ngi woon sur le terrain di def seen liggéey ànd ak le président de la république ñoom itam moom itam ñu di ko jaale ndax bi mu amee def na communiqué eh, ba dem ca bërëb ba nga xamante ni ko fara accident bi amee eh, di ñaan yàlla seenu njaboot yàlla na ni yàlla dolli xolu muñ mën nañ leen jàppee nag ay martyr maanaam ay shahid ndax ci liggéey la wàccee liggéey ci liggéey jaamu yàlla la rawatina métier mu mel ni métier mu suma xibaar nga xam ni mën nañu wax ni que quatrième pouvoir la ci am réew euh, xëj na li ma euh, métti rek te ma di ko xeex chaque jour di ko wax mooy condition de travail yi xale yi di liggéey sur le terrain bërki dem moo ñaa gis suñu événement yi fi amoon gis nañu ay journalistes biir ci loo xam ni euh, lu doy waar la ci ay wàllu ci wàllu brutalité ci wàllu agression ñu ñàkk seeni matériel ci ay arrestation ay injures ak i menaces ba tey kenn waxul euh, damay bañ chaque jour su ma waxee ñu ne buur xëj na dafa am ñu muy dal non ñooñu ñu tuddee soit disant que ay syndicalistes ak wala ñu ñoo représenté presse bi ci ay nangam ak nangam est-ce que li leen war dëgg wala xeex bi tax ñu ngi koy def te mu nekk intérêt presse bi wala wala intérêt patron de presse yi la wala intérêt journaliste yi la ak cadreur yi caméraman ak monteur yi tey abu dama naan saa bu dara arrivé benn journaliste ñoo ñuy wax ni que ñoo ñu xeexal lañ ci mën a def rek mooy bind communiqué nous déplorons wala nous sommes de tout cœur point su dara dese woon tey ba lulul seddi lépp xaalis ñoom ñooy njëkk taxaw ku ci nekk signalé sa bopp waaye su desee lu dul dimbali boy yi ak jàppale leen sur le terrain ak dimbali leen ci aar leen ak seen kaaraange doo dégg kenn ku wax loolu la ñuy wax ne que dafa doy tey nous exigeons clairement que tey xale yi tey seen bakkan des ci accident bi nañ leen accompagner seeni i famille nañu dimbali seen i famille loolu appel boobu dama koy lancer le président de la république lancer ko ki nga xamante ne moom mooy le ministre de la culture de la communication nañu taxawu seen i famille ndax am na ci tey ñoo xamante ne que tey dëkkuñu woon Dakar ku ci mel ni Yoro Casamance la ñu dëkk bàyyi fa seen njaboot ñëw fii di sàkk lu ñu leen dundalee di leen ko yónnee tey mën nañu wax ne que benn nit la boo xamante ne que famille entière wa nekkoon ci ay waggam nañu taxawu ak njabootam defal ko Amadou defal ko Ousmane taxawu leen parce que tey service rendu à nation tey sax ci la ñu ci la ñu nekkoon ndax le premier sénégalais la ñu àndoon tey le gardien de la constitution ngir dugg ci dëkk bi ànd ak moom xool ay réalisation donc le président de la république na taxawu seenu njaboot dimbali leen jàppale leen seen patron nag duma ko wax li war ci xale yi xam na ko te gëm nañ ni que dana ko def mais abu depuis pas mal de temps ñun la presse en ligne ñu ngi subir lu metti te dégg ñu kenn ku ñu ko waxal ñu ngi ñuy boddi ci événement yi moo xam artiste la <clears throat> di ñu boddi ci làmb ji di ñu boddi ci aide à la presse te kenn du wax ngay am moom bu ñu amee rek pare nañ ci abu man buur coono bii may daj su fekkoon ne la tur rek la ak man man duma ko daj mais je pense souvent à mes aînés ñi nga xamante ne que la suñuy rakk lañu tey gis un jeune bu am benn caméra benn ordinateur am ànd ak ñaari moromu sënam yaakaar si di web bañ yor weer bu dee bu jotee ku ci nekk am loo dundalee sa njaboot man ñooñu ñoo ma tax di xeex parce que ñooñu lañu bëgg génn ci milieu bi donc euh, dafa doy dafa doy dafa doy beneen bi ci des gis naa suñu doyen maître Mame Adama Gueye. Mame Mame Adama Gueye. def benn publication bu ñaaw publication bu tilim publication bu salte publication boo xam ne jekkul sax ci diggante jullit ak këdul jullit waxuma laa jullit ak morom def publication ne leeral point net sit bi nga xam ne yéen a ma complot woon ba ñu tëj ma tey ñàkk ngeen seen ñetti nit te la liste noire continuera kon moom ci ay doomu aadama yu yu faatu mhm. ci lay ci lay bég ci koo xam ne dañ lay tudd di di la askanale ci kër gu baax goo bokk booy yi nekk sur le terrain ils n'ont rien à voir avec vos clivages politiques il faut loolu mu leer ñoom bu ñu amee ay problème ak pouvoir ak opposition ak Macky Sall mhm. loolu ñun concerné wuñu Macky Sall fayuñu Sonko dund lu ñu moom Adama Gueye dund lu ñu Barthélémy Dias dund lu ñu Khalifa Sall kenn dund lu ñu dañuy dund di am suñuy salaire di ko jël di ko dundalee suñu njaboot su fekkee dafa am des comptes personnels yu muy régler moom Adama Gueye na ko régler ak ñum ko seqal mais pas muy réjouiru ti deewu xale yi nga xamante ne ay innocent la ñu xamul dara loolu rafetul te bi mu ko defee ñi ngay dégg ñu naan ñooy teewal presse bi ay Apple ak ay Simpix ak ay Correct ak ay nangam ak nangam gisoo kenn ku génn joxor bi ko baaraam ne ko li nga wax ñaaw na li nga wax tegu ko fenn naqarlu ko à la dernière énergie man buur j'exige que toute la presse nationale nañu boycotté Adama Gaye bu ñu jëlati ay publication bu ñu demati ci ay mbiram ba ko kenn invité ci benn plateau ndax li mu wax dafa ñaaw ba di ko tiitaroo wéet wax ko sax ci sa xol ñaaw téef la bàkkaar la waxuma laa nga di ko fësal ay doomi jàmbur yu xëyoon gàddu seen matériel dem daani seen doole yàlla mi moom jaam ñi jël seen bakkan ci yoon wi nga di ci bëgg ak di ci kontaan ak di ci ree te yow xamuloo suba fan ngay mujj yow Adama Gaye def nga lu ñaaw def nga lu bon def nga lu tilim loo xam ni boo ëllëgee di nga ko layoo ak sa boroom li ngay wax noonu nag loolu yow la ak ñi ngi ko seqal mais pas xale yi abu Sénégal dañu war a changer mentalité surtout nos hommes politiques là tenir nañ ce pays en otage que ça soit le pouvoir que ça soit l'opposition politique ñi mu intéressé réew mi bariwul dañ leen di compter benn zéro virgule nangam pour cent la ñaata millions de Sénégalais ñoo fi nekk yoo xam seen yoon nekkul ci politique milité ñu fenn demuñ ci benn parti ñoom kese moomuñu réew mi parce que dérive yi yëpp ñuy def politique rek moo ko waral te ñoom la concerné ñun nous sommes des journalistes des caméramans et des cadreurs professionnels ñu ngi wax ne dañuy assainir milieu bi da nga dégg kenn ku ci protéger booy yi nga xamante ne que tey ñu ngi jug di daan seen doole te ci milieu bi. Daouda Mine moom Youssou kii Daouda mi ñu jox commission bi. Mhm. gis nga mu xalaat ses aînés déggoo ko de gisoo ko de dafa concentré wu ci agenda bi ñu ko jox lañ koy defloo but bi lan la. Mhm. ba di ko seggloo ñañ koy seggloo ñan lañu ak ñan lañ bëgg a tànn. Mhm. ak lan moo tax ñu bëgg leen a sélectionné nañu bàyyi booy ñu liggéey. su ñu mënee jàppale ci ay ay formation jàppale leen ci dajale leen jàppale leen ci cadre leen jàppale leen ci dajale leen ci ay kuréel ak i mbooloo nañ ko def tey li ñuy bëgg a def ni tey bu ñu ko defee ñaata doomu aadama la ñuy supprimer tey ca lañ doon amee kus tuut di ko dundale seen njaboot pourtant day ñoom ñuy jàppee ni que ñoom ñooy ay journaliste am na ay youtubeurs yoo xam ne sax ñoo leen gën a xam métier bi fuufi doole chaque jour je donne l' exemple ndax xalaas pourtant c'est un youtubeur ah, tey fi mu yegg tey ci investigation ak liggéey bu rafet bi muy def wax ma ñoom ces soi-disant journalistes yi kan moo ko ci def nañu nañu arrêté cette discrimination la wooye ñun ñooy journaliste ñun ñoo demoon sest yi ñun ñoo demoon fii ñun ñoo am ay diplôme loolu mooy lan <laughs> donc li may wax daal Abou te di ko tëjee mooy ni ñu gën a jox la presse seen këdd presse en ligne bi nag teg nañ ñu bët. trop loolu on le sait. te xam nañ ko. nañu ku ci nekk yem ci li nga war a dama defe ni ay nit bu ñu àndee. baatu confrère dafa ralaw ba ci ñun. ñoom ñi nekk ci télé ak rajo yi. ak presse écrite bi jàpp nañ ni que ñoo gën foofu. ñu nekk ci la presse en ligne. da ngay génn sax yow mi nekk ci en ligne bi wax dara sax. seen xol di ci bon mhm. nañu arrêté ñun dëgg la nag am na ay dérive mhm. dëgg la te loolu chaque jour dama ci dama ci woo sama sama sama mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sur la presse en ligne chaque jour ma wax ci mhm. nañu gën a xam seen rôle gën a xam li ñuy def lu mu doon outil bi ñu yor du ay caaxaan li mu mën a defar cim réew mu ëpp fuuf donc buñ ko jël di yàq buñ ko jël di ci yàq ay diggante buñ ko jël di ci yàq ay gor nañ ko jël liggéey ci xam ni utilité bi ñu am war na mën a nekk benn utilité citoyenne donc daal Abdou Abou loolu mooy kàddu yi xamante ne que di jaalawaat Sénégal ñëpp euh, ñun ñi nga xamante ne que ñoo nekk ci groupe des des reporters ak surtout les reporters de lutte en ligne euh, ñu ngi ci ay mébét pour dajaloo mm-hmm. jéem xool lu ñu dimbalee famille yi mm-hmm. taxawu leen ba noppi assister leen boole kook organiser journée boo xam ne journée de prière la à leur mémoire ñaanal leen yàlla xaral àjjana ndax li dal ci kaw leeral dalu ci kaw leeral ci presse bi yëpp tey la dal presse bi nag boo ko déggee bàyyiwul ku nekk site web bàyyiwul la presse écrite bàyyiwul les télé bàyyiwul les rajo bàyyiwul kenn ñun ñëpp ñu ngi dellu duñu ko naqarlu ndax ay jaami yàlla lañu sant ci li mu def waaye boole kook di ko ñaan di ñaanal suñu mbokk yi njëggal di leen ñaanal ak texe di leen ñaanal àjjana gu sax dàkk ci barke yonent yàlla Muhammad di leen ñaanal àjjana gu sax dàkk ci barke mag ñi di leen ñaanal àjjana gu sax dàkk ci barke alquran di leen ñaanal àjjana gu sax dàkk dàkk dàkk ci barke jirim yi ak muumin yi kon abu jërëjëf jërëjëf lay waxtu jërëjëf jërëjëf euh, Bour Bourguel man toujours naa la papa Bourguel laa koy di doyen ci li nga xamante naa la ci ci liggéey bi kàddu yu mu yëkkati am na solo lool di jaalewaat ñi nga xamante mooy famille ñi nga xam ñoo décédé di leen jaale yàlla leen yàlla xare àjjana yàlla ñu àggale seen ndaw fi la nga xamante mooy àjjana yi firdawsi am nañ tey naa la mu mun na ne du naqar parce que yàlla suñu borom bu soxlaa rek ku soxla ñàkk ñi nga xamante ni tey ñoo nekk ci liggéey bi ñu xool ñu tamit suñu biir nu ñu jàppalante ba ñu waxtaan déggoo xool ñu trouver solution def li nga xamante ne mooy buur gi war na ko def journée boo xamante journée prière lay doon def si ay wàccee kaamil ñaanal xale yooyu noonu bu baax a baax parce que tey tey nag ñun ñëpp am tey lu yi neexut koo waxal tey rek téléphone tey koo woo sax tey boo déggee di ma xam ne xolam tey neexut mais naa la loolu suñu borom rek ko say teg doomu aadama dañu nangu ndogal da ngeen jëf mbokku internetu Dakar Midi amante nañ tey nee naa la mbégte kontaante dalal nañ tey Bourguel faram-fàcce nañ tey lu bëree bëri tey li xew ci li nga xam mooy milieu presse jërë ngeen jëf beneen émission